rahmatullahi wa barakaatu yéen ñuy seetaan Mosquée Touba TV ñu ngi leen di nuyu ñëpp yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen siyaara bu baax ci bis bu tedd bii di sant yàlla bu baax di julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ndokkeel mboolem jullit ñëpp ci bis bu tedd bii bés bi nag comme ni ngeen ko gisee rek ni ko sëriñ bi woote woon mboolem taalibe yi foo nekk jóge nañ fa ñu ngi wuy muy bés boo xam ne ku gis li fi daje tey ji ci mbooloo nga ne màggal sax du mel nii kenn amul foo jaar kenn amul foo teg sa tànk gis mbooloo mi ni mu mel ci rëy ak yaatu lépp delluwaat ci jëfe ndigal bi rek euh, mu doon bés am solo nag boo xam ne bésub tuub la bésub dellu ci suñu borom la bésub jéggalu ko la bésub ñaan la itam sunu borom teggal ñu jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ko teg yëpp muy bis boo xam ne itam euh, ni ñu ko gisee ñun ñëpp yaatu na waaye boo xoolee ni ñëpp daje toog ànd akub yar toroxlu kenn ku nekk yor xasidaam di jàng sa yaram day daw lool ndax da xam ne nit ñi li leen sëriñ bi bëggaloon ba tax mu woo leen fi déggee nañ ko noonu. te wuusee nañ ko noonu te biñ ñëwee itam jëfe nañ jëgal li noonu kon nag bis la boo xam ne histoire du ko fàtte mukk li ci sëriñ jublu nag mooy doomu aadama dafa baaxoo tooñ te suñ boroom di buur bu bari yërmande boo xam ne muñ ko jéggalu rek mu jéggal mu te waxin wi gën a rafet gën a mat moom la sëriñ Tuubaa waxee ak moom te dàq noo wax ak moom nu war a ñëw fii nag ci sëriñ Tuubaa toog fi ñaan ko mu ndox luñ suñu diggante ak suñu borom ba suñ borom dolli nu yërmate dolli nu njëggal dolli ñuy xeewalug mucc dolli ñu xeewalug wér ban gën koo mën a jaamu nan ko bëgge te jéggal nu nag rëcc-rëcc yi nga xam ne moom lay moom la moo ñuy rëcc léeg-léeg ñu di ko tooñ suñu bopp loolu mooy li nga xam ne mooy li sëriñ bi jublu ci bis bi waaye murit fu murit nekk nag wuy see ko noonu mu ko wootee woon euh, jëfe itam ndigal li dina mu gën a mate mboolem fu daara nekk ci dëkk bi tey xëy nañ di jàng alxuraanul karim suba gi ba ngoon ñeneen ñi ci des ñëpp daje ci penc bi wala ak ci yeneen penc yi ci des yi nekk ci dëkk bi yëpp di jàng xasida ba julli takkusaan loolu lépp nag sëriñ bi def koy def ngir ñu ñaan sunu borom mu teggal ñu natt yi nga xam ne moo nekk ci àdduna si yëpp muy bis boo xam ne nag yaakaar jëndut ci am Euh, euh, rëy na lool waaye àttan na lépp nag ñu ñaan suñ borom boolem lañ ci yaakaar rek mu defal ñu ko ci ñu ngi santaat ñëpp ci dégg gi nga xam ne moom lañ dégg woote bi ak li nga xam ne moom lañ ci waxoon ndax taalibe bi boo xoolee tey jii ni ñu takkoo ci liggéey bi mbuus sax nanguñ moo taxawalu ñii ngi fari mbuus yor ay saako tey gis naa sax koo xam ne mi ngi wax ngi taxaw naan dimbale leen ma ngir yàlla may ma mbalit defal ma ko fii ngir ma man koo toori ñii ngi taxaw naan dimbale leen ngir yàlla naan sama ndox mi ñii taxaw naan ma ngir yàlla jël sama ñam wi waaye ñii tax toog itam di jëfe li nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon lépp kon nag bés la boo xam ne eh, yu bari feeñ na ci mooy nangu gi nangoo tënku ci kilifteef feeñ na ci waaye doon ngi sunuy xol yëpp doon benn bokk genn bëgg muy sëriñ Touba itam feeñ na ci waaye yéenante gi ñu yéenante jàmm itam feeñ ci bëgg gi bëgg a liggéeyal sëriñ Touba feeñ na ci loolu nag dana suñu borom mën na cee sukkandiku ba dolli ñu bu baax a baax a baax a baax yërmande teggal ñu itam natt yi nga xam ne moo am ci àdduna bi yëpp yàlla na ko def ci barkeb sëriñ Touba ñu ngi santaat sëriñ Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di santaat bokki taalibe itam ci nii ñu jëfe ndigal li ci jëfin wu rafet bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.